colonie yi de vacances fii ci lycée Ndayane mhm. ak tout tànk Baye Mahfous Mbacké yi ak ay taalibeem ñi nga xaw a dëgër ci taalibe yi ñoom ñoo fi nekk ak xale yi def cours de vacances comme que ñun ay tout tànk lañ ba pare ay taalibe Serigne Touba lañ dañ koy doxee comme ni ko sëñ bi bëggee jàng arxuraan lañ fi xëy di def ngoo ak jàng xasida tamit dinañ leen defal ay cours particulier ci li nga xamante moom lañuy yëngu ci wàllu école bi parce que ñoom xale boo fi gis rek mu ngi dem école di ñëw yemuñu rek ak ñoom ci alxuraan ak xasida dañuy leen di yóbbu tam ci yeneen cours da ngay jël ay ustaas ay ay maître coranique yi lañ koy defal. waaw ñi ñoo xamante ni dañoo remoon mhm. di leen jàngal alxuraan ak xasida. Mhm. taalibe Sëriñ Tuubaa yi. Mhm. gis nañu tamit xale yi ñu ngi jàng nasaraan yu si toll nii anglais. gis nañu ñu ngi ciy yëngu. waaw dañuy jël dañuy def anglais. dañuy def français math yëpp la ñuy def daal parce que dafa am ñu nekk collège am ñu nekk primaire. ñoom ñëpp dañ leen di jàng ku ci nekk niveau ba nga toll rek dañ la fay jàngal dimbale la fa bu baax sa école ngi waaj a mhm. eh, ndax amul yeneen secteur d'activité yu bokkut ak njàng mi. waaw waaw waaw am na am na. Mhm. parce que am na ñun am na jour yoo xamante ne ni dañuy war a dem sorti mhm. sorti boobu nag comme ñu ko waxee rek ci sëñ bi lañ tàmbalee ci sëñ bi la ñuy yem. Euh, ci ndigalu suñu wasila Cheikh Mouhamadul Mahfous Mbacké sorti yi ñuy def yëpp fi sëñ bi tegoon tànkam rek foofu lañ bëgg a jaar gëstu ñu yeel ñu xale yi bu baax ci sëñ bi. parce que comme ay ndaw lañ xamaguñ dara ci sëñ Touba. Mhm. te liggéey sëriñ Touba yombul bala nga kaa liggéey il faut nga xam tuuti ci moom. Mhm. mun ñoo xam lépp nag mais ñu xam tuuti rek. jàpp nañ ne dinañ dem ci résidence bi. Mhm. résidence bi nekk fii mhm. fi nga xamante nii foofu lañ tey woon sëñ bi fukki lu tolloo fukki at ak juróom-benn. Mhm. dinañ dem foofu vérifier ko ndax xale yi ñu ci bëri seen tànk mosul tege foofu. dinañ ànd ak suñ benn jëriñ bu ñuy wax Ibrahima Ndim Baye Fall dinañ ànd ak moom mu gide ñu suñ jógee foofu. dinañ dem ak moom dinañ dem biir kër gu mag suñ fa jógee dañ dem ko Cheikh Ibra première sortie bi daal foofu lañ eh, ciblé pour dem fa waaye lépp ci Cheikh Mouhamadul Mahfous la ñuy commencé ci moom la ñuy yem bala ñoo génn ci moom la ñuy ok mu mel ne ndax mën nañu xam kan moo leen gunge ci ci colonie vacances yéen a demal seen bopp te matuwaay bopp ngeen jël wala am ñu nekk seen ginnaaw nag ngeen dafa taxawal lii. waaw fi mu nekk nii ñun biñ ci waxtaanee nga gis fii ñu nekk fi mag ñi fi nekk biñ waxtaanee dañoo dem jot ndigal ci sëñ bi. bi ñu joxee ndigal tamit dox nañ ci def nañ ci quelque jéego dañ ci euh, autorité ñi mel ni ñenn ñi ñenn autorité yi nekk ci dëkk bi waaye depuis boobu ba léegi defuñu benn réaction ñun rek ñooy dem ak suñu doolay bopp gis nañ koo xam ne nag moom dañ koy sant jik ci ko ci gërëm benn taal bi Serigne Touba wax ñu ko daaw da ci am ngi dëkk Kër Cheikh moom jàpp na ci bu baax à moom nag suñu moyen bopp la ñuy demee hmm. waaw demoon nañ nag parrainé ko monsieur le maire ak Cheikh Mouhamadoul Mahfouz moom mooy mooy njëkk moo mujj waaye monsieur le maire bi ñu koy na tamit ñun dañoo déggoon ci ay kàddoom ne moom sa njaareem moo ko ñor te Serigne Touba moo ko ñor dafa waxoon ne tamit bala moo am jàmm njaareem dafa am bésu boppam ñu yaakaar ñun tamit comme dañoo jóg rek di liggéey Serigne Touba ku ñu xamoon na rek wala ñu yaakaar ne da nga yëngu ci mbiri Serigne Touba ñu tàllal la loxo wante depuis :fra boobu ba léegi ñu ngi doon fay jaabante boobu avant tabaski ba léegi ñuy jaabante foofu